Baara Ndiaye doon président communauté rurale vice président ndax xam ngeen ni président bi Serigne Abdou Aziz Mbacke moom Serigne Cheikh Thioro mooy président bi waaye lépp def ko jox Papa Ndiaye moom Baara Ndiaye kon nag mooy daloo gan ñi li ñu naan souhaiter la bienvenue. salaamaaleykum wa rahmatullah ñoo ngi leen di nuyu ci turu. Cheikh Abdoul Aziz Mbacké président communauté rurale de Mbacké Kayor di jottali rek kàddu yi nga xam moom la daa jottali muy càdde ngërëm ak sant yu jëm ci waajuram sëriñam yaakaar yi àdduna ak àllaaxiraam Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké xalif général de Mouride mbokk yi liñ waxoon ci at yi yëpp rek la ñuy waxaat Serigne Abdou Aziz Mbacké nee na mi ngi gërëm mboolem sëti Serigne Bara yi nga xam ñoo ko jàppale ci liggéey bii nga xam ne Serigne bi dénkoon na ko ko tan nekk ci catul mandat bi tamu def ci ay liggéey yu bari yoo xam ne moom ci boppam kawe na jottam xam na ni sëti Serigne Bara yi rek ñoo ko jàpple tàmbalee ca bopp ba Cheikh Moustapha Karim mii ak mbooleen koo xam ne si bokkoon nga ci liggéey di ko ci jàppale ba li ko ci sëriñ bi mu def ci lu kawe njottam ah sëriñ bi sëriñ Moustapha ñoo ngi lay siyaare di yóbbante ay cant ci sëriñ bi di xam le ni sëriñ Cheikh Sidi Moukhtar Mbacke mii Serigne Touba wër na Sénégal adduna bi yëpp gane leen waaye daal ñibbi siwaat Mbacke Kajoor te firndeel na ko moom Cheikh Sidil Moukhtar Mbacke bi mu ñëwee Mbacke Kajoor nag day dëkk duutu dellu moo tax mu yëkkati yaataayu dëkk bi natt ko yaatal ko lool di woote woote bu rëy mboolem seexi Serigne Touba yi nga xam nekkoon na ci daara ju mag jooju ci Mbacke Kajoor te ku takk kaala tey fi nga ko takkee sëriñ bi nee na ngeen ñëw yeesal seen kër yi seen kër yooyu nga xam ne si moo tax yoon murit a mel nii mu mel sëriñ bi yaatal na dëkk bi natt na ko indi na courant bi indi na ndox mi indi na lamp yi indi na fajukaay yi te indi na fi jàmm barki rek bi Eva Marie Coll ñëwee di ko wax feebar bi xew ci Guinée moom ci gimiñam moo ni feebar boobu du fi dugg du dugg ci réewum senegal ku mel noonu nag ku ko am bu wootee dëkk Serigne Touba bii nga xam mooy dëkk bi ko gënal ci dëkkam mi maa ngi leen di wax ngeen ñëw beneen bi itam sas yii nga xam ne di koy laaj ñaari téeméer ak ñaar fukki dërëm ak juróom-ñett rëkk waay murid yi nan leen mel ni ay xorandoom waxuñu joxe ko benn yoon xorandoom na moom bu yanoo bu eggee fa mu yenn ko rek bu wëlbatiku yanu di waat kon nag ñun noonu lan war a defe kii kon nag ñoo ngi continuer di sant di wax ni Serigne Cheikh Thioro Mbacke mii nga xam ne sii moom la Serigne bi tegoon ci suñu ñu ànd ak moom liggéey bi day ñun dey naw nañ ko te sant nañ ko ndaxte xelam xolam jëmmam alalam lépp def na ko ci ndigalul baayam bii waajuram wii sëriñam bi ba màggal gi dimension bi dem na foo xam ne ñëpp xam na ni wax dëgg yàlla ku yokkul wàññi nga liggéey na ci liggéey bu rafet boo xam ne si état seere na ko waa kër Sëñ Baar yi seere nañ ko waa kër murid yëpp seere nañ ko kon Serigne Cheikh Mbacke gàcce ngalaam kon alaaj daam joom joomeen kunta kàddu gaa ngi wa sallallahu taala ala sayyidina walana muhammadin nabi lummi wa ala alihi wa sahbihi wa qadimihi wa ummati wa salama taslima bokki julli si teew yëpp bokki taalibe yi maa ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk turam ak santam di tàmbalee sama siyaar ci Cheikh Mouhamadul Bachir mi nga xam ne mooy rakki sunu sang bi ku tedd ki Cheikh Sidil Maxtaar ak Serigne Modou Aïssa Mbacké ak mboolem rakki doomi Serigne Bari yëpp di góor yi ak jigéen ñi Mouhamadul Moustapha noo nuyu yow mi taawu xalifa bi di taawu kër gi di nuyu Serigne Cheikh Thioro mi nga xam ne moom la ñu wóolu muy coordonné màggal gi yëpp te ak mu ne sunu borom dimbali nu ba fa mu daan yem mu tàmbalee foofu jëm kaw kon noonu nuyu te di ko siyaare bu baax a baax di wax nag ci sunu tuur jëwriñ muy El Hadj Ibrahima di jàmbaar joo xam ne li ko dal mooy tële rek waaye xol ba ma nga fa mu nekkoon noo ngi koy nuyu di ko siyaar ak bépp taalib boo xam ne aju ko ci kër Cheikh Modou Lamine yitte teg cheikh yi nga xamante ne ñoo aju ci kër Cheikh Modou Lamine ak mboolem cheikh Serigne Touba yi di nuyu taalibi Serigne Touba yi yëpp di nuyu Serigne Ahmadou Makhtar mi nga xam ne mooy rek Serigne bi ak mboolem. njabootu Cheikh Moustapha Al Karim te Serigne Abdourahmane nekk di toog dañu koy gàttal ndax bu ñu limee dañ koy desal kon bu ñu tuddee ñooñu mel na ne bàyyiwuñu kenn du di njabootu borom daru ñoom ñi nga xam ne ñoom moom bis bi ak waa Mbàkke Kajoor yi kenn di nuyu mboolem daayira yi nga xam ñoo aju ci kër Cheikh Mamadou nekk ci Sénégal nekk ci bitim réew ñoom ñëpp. noo ngi leen di nuyu seen tur di leen xamal ne seen jëf ak seen yéene lépp ak si na ci sëriñ bi sëriñ bi xam na ko ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax di nuyu fédération yi di nga xamante ne ñoo nekk ci Sénégal ak bitim réew yëpp di ci fàttaliku nag suñu jàmbaar ji di nga xam ne mooy Alaaji Dam Sarr ak sëriñ Xaadim Thiam ñoom ñëpp ñoo ngi leen di fàttaliku ci bis bi li ñu fi ñaan yàlla yàlla nangul ko ca jotalee ci yoon bi noo ngi sant mboolem koo xam ne ñëw nga fi fédération yi yëpp na leen gërëm na leen di sant taalibe yi nga xamante ne dañoo am yéene ci ku tedd ki ba jëf ci màggal gi ak mu nañu jëf ci jëf ju rëy joo xam ne kawe nañ jortu ñooñee ñëpp seen jëf sëñ bi xam na ko mi ngi leen ci sant mi ci gërëm ñooñee bokkuñu daayira bokkuñu fédération bokkuñu ci dara te ak mu nekk ñu jëf-jëf joojee ñuy jëf ci tax ñu di ko ñu Cheikh Mamadou leen li muy seddale yàlla bu leen ci kenn noppale nu sant képp koo xam ne ak foo mën a bàyyi ko wala nga amoon yéenee ñëw tànki ñëw yi ak yooyu dellu yàlla ko yàlla def muy tànk yi di tànki fajuwaay yi di tànki far bàkkaar nuy sant taalibe yëpp nu gën a doole góorgóorlu li ma am kenn amu ko nag du waxe nit waaye nag li ma am yombul ku ne sañ na ko wax waaye kii nu am di ku tedd ki Cheikh Sidil Mokhtar mën na noo xam ne yombul ku ko yàlla dénk nag war nga koo xam te góorgóorlu bu baax a baax a baax li muy santaane mooy nañu bàyyi puukari bi ca dem liggéeyi te jaamu ji yàlla loolu mooy bëgg-bëggam loolu la digal mboolem taalibe yi ñi ngi gërëm ñépp nag di sant ñépp di la xamal ne Mouhamadul Moustapha ñi nga xamante ne ñooy waa Njambur gépp di Cheikh Serigne Touba fa nekk ak sa mu xaddami Alaaji Malick ñu ci bare bare bare koo xam ne teewul ci bis Cheikh Sidi Mokhtar bi sa ndaw ñëw na ngir li jafe woon te ñëpp bu doon oto bu paana ñu xam ne bi ko dépendé Cheikh Sidi Mokhtar moo ko andi mooy li jafe woon muy ñëpp nekk benn loola ci moom la ko yàlla jaarale ba tax na kenn ku ne am na yéene am nga mbégte am na bëgg-bëgg boo soxlaa kenn ku ne ñun ñi di ay taalibe ñoo ci ëpp yéene noo ngi lay seetal Mouhamadou Moustapha ñooñu ñu ci bare bare bare ñëw na ngir jëmmi yàlla ak yonent bi ak sa wajur Mouhamadou Moustapha danañu la sant bu baax ngir li ñu lay sant mooy woyof gi toy yaatal bu baax a baax a baax bu la neex rek am noo mel fa goliku ne man maay doomi xalifa bi waaye defoo ko waaye nag sa alluwa la ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla mayoon na ko bu tibbee xeer bu sànnee day fël xoo ba fa ñëpp dañuy daanu ba fa ba fa koy mujj waaye ba mu bëggee xool xoogale ko nag sunu borom dana ko ah déet taxawal nag du yow ma nag wa maa ramayta is ramayta walaakinna Allaah ramee moo tax doo xoogale ko benn yoon yàlla na nu yàlla faree sunu xel dal na ah kon nag loolu rek laa bëggoon di wax sëriñ Cheikh ñu ngi dellu gërëmaat bu baax a baax ndax mbir bu fekkente ne yow mi ko yore àggale ko foo xam ne mosu faa àgg ca dëgg-dëgg ñu wax la ko wariwul dara. Alaaji Ndiaye mooy wax ci turu Abdoulaye Ka président conseil rural والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu di jiital ci nuyoo bi suñu yaakaar tey ak ëllëg Serigne Sidi Mokhtar Mbacké xalifa général des Mourides mi nga xam ne moo fi toog toogaayu Cheikh Ahmadou Bamba di nuyu mbooleem taalibe yi ak sëriñ si nga xam ne teew nañ ci jotaay bi di ci jiital sëriñ Moustapha mi nga xam ne moo jiite jotaay bi ak mbooleem kilifa diine yi nga xam ne nekk na fi boobu yëpp nag di nuyu itam monsieur le président de la république Macky Sall ak délégation bi nga ne yebal na leen gannaaw loolu nag nuyoo bi yëpp ñu ngi ko jëlee ci turu président Abdou Lahad Ka muy président communauté rurale Touba Mosquée Serigne Moustapha président Abdou Lahad nee na ñëw na ci gi ñëw ci bisam di taalibe bi mu ñëw nag mu ànd ak bu rëy ngir fii mu jëm si moo ko waral ndax liggéey bi muy liggéey borom liggéey bi ci la jëm si moo waral mu ñëw fekk fi sëriñam xaritam sëriñ Sidi Mbacké Abdoul Aziz di premier ministre président di ko ko jàppale lool ci liggéey bi fekk fii sëriñ Cheikh Bara Madilay di conseiller di ko xam ne yéen ko jàppale ci liggéey bi la ak mboolem délégation bi nga àndal ñëpp fekk fii tam xaritam sëriñ Abdoul jaxate moom it di conseiller bokk ci liggéey bi fekk fii Serigne Birane di conseiller bokk ci liggéey bi Alhaji Mam Mbay Ñang moom itam di conseiller Serigne Matar Diop Serigne Mam Cheikh Ka Serigne Fadilou Diaw Alhaji Fadilou Ndiaye Serigne Abdoulahad Bousse Moukhtar Serigne ak ñoom mboolem délégation bi nga xam ne ànd na lépp ci gàttal Serigne Cheikh président ne am na mbégte lool ñëw fii ci Mbàkke Kajoor ñu jox ko fi kàddu bu sañoon mooy jël kàddu waaye li mu baaxoo rek moo waral mu joxe kàddoom waaye nag li muy njëkk ci kàddu gi sant Serigne Sidi Muxtaar cant boobu nag ñu ko tuddee ci sëriñam Serigne Sidi Mbàkke Abdoul Aziz ak mi nga xam moom la Serigne Sidi Muxtaar wóolu yëkkati kàddoom jox ko ko muy commune rurale Touba ak li aju ci dëkku Touba ba mu ko defee mu wóolu ko jël ko tegaat ko ci loxo boole ko ñii mu àndal waaye Serigne Moustapha président Abdou Lahad nee na moom day mi ngi sant Serigne Sidi Mokhtar cant gi nag ñun ñi nga xam ne ñooy liggéey ci commune rurale bépp amee nañ ko ndax Serigne bu neex a liggéeyal Serigne boo xam ne bu la joxee du gëstu la ngay def di law dara lépp loo waay wala nga ñàkk wala nga dara ñëw ca moom. boo ko kalaamee mu renvoyé waat na la dellu ci président communautaire bu waxtaanal la kooku ma ngay liggéey ndax kooku fekkoon ne ku ñëw mu jël wala mu wax leneen kon liggéey bi dana jafe waaye dafa xam ni muy liggéeyoo xam ñu ko dénk xam ki ko dénk ki ko dénk nag mooy Serigne Abdou euh, Serigne Sidi Abdou Lahad barki dem buñ fi ñëwee rek fekk diliwaat na ko wax na ko yaa ma doy jox naa la li ma la jox aw ma ci lu may seet amul ki wax loolu mu ko waxee ñu ngi yàlla na liggéeyal Serigne Touba li ñu ko bëgg a liggéeyal lépp ñëpp yéene nañ ko damay wax ne day Serigne Sidi Mokhtar ne ndamu yoonu murit la ndax doxalinam ak ni muy doxee ci yoonu murit kon yàlla nañ ko ñaanal mu yàgg Serigne bi Abdoulaye nee na mi ngi sant ñi nga xam ne ñoom la bokk di liggéey ci Touba ndax ñi nga xam ne ñoom la fi lu nekk ay kilifa nga boole leen ak ñoom muy Serigne Cheikh Bara Madina nii rawatina nag Serigne Bachir Abdou ñoom ñëpp dañ koo jiital di ko liggéeyloo muy liggéey liggéey boo xam ne bu ci amee résultat tey ba communauté rurale Touba liggéey li mu liggéey ba ñëpp ràññee ko ci Sénégal kon grâce à ñu mu àndal grâce ak sëriñ bi nga xam ne moom la dox liggéey muy sëriñ si Dablaar kon nee na mi ngi di gërëm di ñaan ñu yàgg ko fee teewee di ñaanal sëriñ si di muxtaar di ñaanal sëriñ si di abdasi ak mboolem képp koo xam ne ñu rek yaa ngi ci yoon mu di taalibu sëriñ Touba nee na mi ngi leen di moom de fas yéene naa fuddiku mu fuddiku woon lu mu mën a fuddiku rek dolli na koo fuddikuwaat ngir fas yéene liggéey ndax sëñ Sidi Muxtaar de keroog bi sëñ Sidi Abdoulaye jógee mu wax ko lan koy wax da koo woowaat woowaat ñenn ci conseil yi ñaaxaat leneen fas yéene da dana liggéey bi ndax sëriñ benn liggéey de kontaan na ci liggéey bi te bu loon kontaan bu kontaanee rek sëriñ Tuubaa kontaan na sëriñ bi kontaan yonent bi kontaanee suñu borom tabaaraka wa taala kontaan kon nag mbir mi ñu ngi di sant di ko gërëm di ñaan nga ñaanal ñëpp nag di gërëm ne sëñ Cheikh Thioro ak mboolem président communautaire sëñ Abdou Aziz suñu nakaroo mi nga xam ne moo leen fii sëriñ bi ne président nee na woon du àggale nag ci ñaan nga ñaanal réew mi ñaan ji mu ñaan nag dafa xam ne njabootu Serigne Touba ñoo fi daje tey bu ñuy ñaanee dana am na feebar bu ñuy dégg muy law nekk ci suñu dëkkandoo yii sëriñ président nee na nga ñaanal réew mi ba feebar boobu ñu dégg ko rek ba mu agsi fii ñëpp am jàmm asalaamaaleykum wa rahmatulah. jërëjëf jërëjëf ak ak. alhamdulilah. sunu kilifa di sunu mag di sunu sëriñ yaakaar yi man Thierno Mbacke di sàkku ci yéen ngeen jottali ñu sunu nuyoo ak sunu siyaar ci sunu sëriñ sunu yaakaar tey ëllëg di Mawlana ak Cheikh Sidi Mokhtar Mbacke hafidahullahu wa ta'ala di ñaan ci barke Cheikhul Khadim mi maamam te mu di ko liggéeyloo sunu borom te may ko li mu li mu ko liggéeyal njabootu ko liggéeyal mboolem diinu islam mu def ko na mu ko bëgg sëriñ Cheikh sëriñ Cheikh Sidi la ci yoonu murid mbégte la ci yoon wi mbokk yëpp it dañ koy sagoo ndax li sëñ Tuubaa bëggoon ba ñaanal ko borom tabaaraka wa taala sunu borom def na ko ci ak Cheikh Sidi Moukhtar xam ngeen ni sëñ bi mu jógee dafa def ay loxoom sunu borom tabaaraka wa taala wax ko ne ko wahab lanaa durriyatan tujaddidu nahju nabiyyil Mustafa tajtahidu wahab lanaa durriyatan tudiimu al amala saaliha yaa qadiimu sëñ Tuubaa dafa ñaanal sunu borom tabaaraka wa taala mu jox ko ay sët. yoo xam ni dañuy yeesal yoon bi nga xam ne moom la Seydunaa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam xam ne kenn amul sikk si kenn amul sikk ci ne ak Cheikh Sidi Moukhtar moom yi sunu boroom moo ko fay Sëriñ Tuuba ci la doon naan sëñ bi ñaanal rek ba yoo xam ne dañuy sax ci jëf jëf yu gën ki settantal jëm ci mboolem taalib yi bokk yi loolu kon xam ne ne Cheikh Sidi Mokhtar bokk na ca li sëñ Touba fayee li sëñ borom fay sëñ Touba ak Cheikh Sidi Mokhtar amul genn yitte ju dul liggéeyal sëñ Touba amul benn bëgg-bëgg bu dul liggéeyal diine islam te loolu mooy li am njëriñ ku nekk gis na ni mu songi liggéeyu Touba bii ak léegi liggéeyu Ndakaaru lu mu liggéey ak lu ko waay jox mu defal la ko ci liggéey sëñ Tuubaa bi mooy li am njariñ ndax suñu borom kat dafa wax ne inna Allaha ashtara mina al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna te yoon boobu nag ca la Seex Sidi Muxtaar nekk ca la sóob mbooleem njabootu sëñ Tuubaa di ay bokkam ca la sóob mbooleem taalibi sëñ Tuubaa kon noo koy sant di ko gërëm bu baax a baax a baax a baax gërëm fa njot itam bu baax ndax bu liggéeyal suñu borom sunu borom moo lay fay moo lay fay bopp sunu borom wax na ne waxul ya'malu fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun sunu borom nee na na ngeen di jëf jëf yu baax bu ngeen ko defee man sunu borom danaa ci teg sama bët yoon bi sallallahu alayhi wa sallam dana ci teg bëtam way gëm yëpp it daañu teg seen bët kon nag ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant mboolem mbokk yi ñëpp di bokk Touba di bokk Darou di sant autorités yi nga xam ne président la te ñu dikk ci teewal fi teewal ko fi ngir diggante sëriñ bi ndax sëriñ bi dafa boot ñëpp di may juru ñëpp di kilifa ñëpp ñoom ñëpp noonu leen sant di gërëm bu baax a baax dina xam ne na liggéey yi xam ne moom la sëñ bi sumb man noonu ci soññ suñu bopp di ci soññ mbooleem ku bokk ci sëriñ Tuubaa di bokk ci sëriñ Tuubaa yi di taalibi sëriñ Tuubaa te xam ne nag liggéey rek mooy am njëriñ suñu borom wax na ne fallaahu fi amni abdihi maa daama al abdu fi amni axiihi suñu borom nee na dana sax ci di dimbalaat jaamam ñi seen jàmbaar di dimbali moo leen jàmm kon noonu sant di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa mbokki julli yi mbokki teere bi yi ñoo ngi taxawaat fii tey ci Mbàkke Kajoor ginnaaw ba ñu santee yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi ndax fii lañu taxoon taxawoon daaw ñaan ko yàlla may ñu fekki te woon alhamdulilahi rabbil alamin yàlla nañ ko yàlla mayaat ma ci samay kaddu ni ñu ko baaxoo def fii di teraanga bi nga xam ni sëriñ bi sëriñ Cheikh Thioro mu ngi ñu koy jox ci ndigalul sëriñ bi ngir lislaam kon maa ngi yëkkati samay kaddu yu tedd ak samay nuyoo yu sell jagleel ko sunu mag sunu kilifa sang bu tedd bi sëriñ Cheikh Sidil Mokhtar yal na yàlla may ko wér ak du fat yàlla bàyyi ko sunu kanam mu yàgg ñoo jiite yàgg woote bis bi ñu yàgg ko wuy si maa ngi nuyu kilifa yëpp di nuyu délégation officielle bi di ministre d'état sunu frère Mbaye Ndiaye sunu jigéen Aminata Mbengue Ndiaye sunu jarbaat Khadim Diop sunu jarbaat Arona Coumba Ndoffène Diouf di nuyu kilifa yi nga xam ne yëpp ràññee nañ leen fi mënuñoo tudd ñëpp waaye maa ngi cee jagleel nuyoo Alioune Sall di sunu rakk di sunu xarit di sunu soppe di sunu wallare di nuyu maître Madické Niang moom bi tamit di sunu doom bàyyi di sunu xarit di sunu soppe di sunu wallare mu mel na eh, fii ma taxaw lislaam a tax ñu taxaw fii ndax guddi na mënuma wax lépp waaye sëriñ Cheikh Sidi Mokhtar dafa wéyal la mag ña bëggoon man day am naa ci lu bari lu ndax sama bàyyi Alxaaji Amar Siise daf ma daan nekk dama fekke sax lu bari ci digganteem ak njabootu Sëriñ Tuuba dale ko ca bàyyi Cheikh Mouhamadou Fadal ci li ñu fekk yi ma dégg ak yi ma yi ak yi ma jàng loolu jiitu na sax loolu ci Baye Cheikh Mbow Moustapha waaye lii sëriñ Baye Cheikh Mamadou Fadou moo ko jëkk woowee sama baay alxaaji Amad Cissé ni ko dama bëgg nga doxal ma loolu muy lan nekkoo benn lislaam bi loola nag yàlla may ko sama baay Fallou Mbacké cay jamono mu di ko doxal l'islam bi yëpp nekk benn ba jóge fi yàlla dogal loola am yeneen yu ci doon yëraat waaye confirmé bi sëriñ Cheikh Sène Moktar la ba mu ñëwee ni l'islam bëggatuma dégg tey la suba la ginnaaw suba la loolee ba mu ko waxee yàlla di ko ci defal ndam waaye waaye sëñ Cheikh Sène Moktar yàlla na ko yàlla dolli ndam waaye ndax kat lii dara daxu ko l'islam bi yëpp nekk benn xam nañ ne fii Mbacke Kajoor la Mbacke Kajoor su fi sëtu Alxaaji Malick wala doomu Alxaaji Masise taxawee di wax loola wane na ni Serigne Cheikh Sidi Mokhtar li mu bëggoon yàlla koy lay dëgg la nag man yàgg naa fi taxaw ndax man naa ni ba ma fi dalee taxaw di wax fii loolu du tey démb la waaye nag at mu nekk Serigne Cheikh Thioro confirmé loolu jox ñu cër bi sagalee ñu ko. ñoo ngi ñaan yàlla loolu yàlla na ko yàlla saxal sëriñ Cheikh nu mu lay gërëm taxaw nga taxawaay bu rafet sëriñ bi lim la dénk wax dëgg yàlla rafetal nga ko jëfe nga ko yàlla mi am jàppale yal na la yàlla jàppale sunu xol sedd na ci yow lool sant naa ne njabootu maam sëriñ Touba Gueye dafa guddi ndax léegi timis jot waaye maa ngi nuyu itam sëriñ Safa mi nga xam ne tey moo fi ñëw toogal ci sëriñ bi taxaw taxawaay bi liggéey bi mu ànd ci ak njaboot gi joxe ndigal lépp ñu di ko doxal ñoo koy ñaanal moom itamit yàlla jàppale ko mu yàgg amee ndigalal sëriñ bi moom it mu yàgg joxe ndigal njaboot gi ñu di ci taxaw ci mbir mi ba ni mu ko bëggee yàlla defal ko ko loolu lañ doon sànni ci kaddu nuyoo ko mbooloo mi sante ko mbooloo mi dafa guddi waaye li ñu ëmboon bari na waaye ñoo ngi ñaan yàlla yal na yàlla may ñu teewaat ko na nga di déwén ci barke yonente bi sallallahu alayhi wa sallam asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. asali tastaniru sudur nahmaduhu wa nusabbihuhu wa nuqaddisuhu wa huwa almuxtasu bi tasbihi fi kulli makanin wa kulli zamanin wa huwa almuqaddasu ana alayhi wa atrafa nahar يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان عليما غفورا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما mbokk yi maa ngi nuyu njabootu seen Tuubaa yëpp di am mbégte di leen ndokkeel ci seen bés bu mag bu tedd bi di jóg kii ci njaboot gi ki nga xam ne tey jii moom la yàlla teg ci place Sëriñ Touba muy xalif général de Mouride indi na ndam lislaam waaye indi na kër Sëriñ Touba li ko waral moo di tey jii amul benn këru diine bu dul la amel sëriñ bi li ci mujjee rek mooy bi màggal gi jub def nañ benn caravane di wër këru diine yi pour jox leen ay teraanga këru diine bu ne sëriñ bi yónnee na fa ay piis këru diine yu nekk sëriñ bi yónnee na fa xaalis këru diine bu ne sëriñ bi yónnee na fa yu ñuy naan ngir nga préparé ka gàmmu wala màggal kon ci kër diine yëpp Sénégal amu ci kenn koo xam ne war naa su woo teraangay xalifa bi te yonent bi nag moo ne woon man asda bikum maarufan fa kaafiuhu xam nga dafa am lu ñuy wax xam-xam zahir am lu ñuy wax xam-xamu baatin léeg-léeg zahir nuroog baatin nga fa demee technologie bi xew léegi nit mën naa xam puso bu daanu ci sa loxo dugg ci géej ba ci suufu géej nit mën naa gis ku nekk màkk yow nga nekk Dakar waaye seen xam-xam boobu yëpp léeg-léeg yàlla caxleen xoolal fan yi avion bi réer avion bi ñu xool ci kaw ba seen ñu xool ci suuf ba mu fan a yem gisuñu avion te fekk mu yëpp ay téeméeri nit kooku xam-xamu zaahir bu échec la dinañ nett ne Seydina Ali Abi Talib ku bari woon xam-xam xam-xamu baatin am na bés Seydina Jibril sopp la ku jëm ñëw ci wetam ne ko Seydina Ali maa ngi lay laaj ana jibril fu mu toog nii naa Ali xool ci kaw xool ci suuf xool ndejoor xool càmmoñ ne ko man de xool naa ba ci kaw juróom-ñaari asamaan gisuma jibril xool naa ci suuf ba suuf jeex gisuma jibril xool naa ndejoor gisuma jibril waaye waaye baatu yaa jibril waay mu ne ko waaw man la jibril kooku moo yor xam-xamu baatin xam-xamu baatin boobu mu yor nag am na ñu ko doon ci àddina bi sëñ Cheikh Makhtar mi ci kon ñu ngi koy ñaan mu ñaan ci xam boobu sunu réewu Sénégal bi yàlla def fi jàmm ak kaaraange surtout ci feebar boobu ñuy bi ñu toog mooy ci turu këru diine yëpp kenn desi ñu ngi gërëm sëñ Cheikh bi nga xamee ne lot xamte ci lu ñu lottoon ana li ñu lottoon moo doon fexe ba jullit yëpp di wareendoo benn bés di koorandoo di tëbëskindoo ku ne jaar na fi nag waaye moom na yàlla jox chance boobu muy cëram ñu ngi ko ciy ndokkeel ñu ngi gërëm itam sëñ Cheikh Thioro ak mbooleem ñi nga xam ne ñoo àndoon ak moom ci liggéey bi te seen Moussa Ba ci kanam ñu ngi ko ciy gërëm xam naa comme ni mu ko waxee waxtu yu xat na waaye daal mbooleem tey jii koo xam ne kii yaa ngi wax ashadu an laa ilaha illa ci réew mi yaa ngi am mbégte ci sëriñ bi mbégte yi mooy hadis bi ma waxoon léegi dama waxoon ne yonent bi ne ne ku ñu def na ci teraanga par force nañ ko fekk Seydina Ali Abi Talib laaj Ali laaj yonent bi saa salaam ne bu fekkee ki def teraanga ji dafa am doole ba mel ni Ababacar kii mu ko defal mel ni Ali naka la koy fayee mu ne ni koy fayee mooy bu wéetee na dëkkee di ko waxtaane di ko ñaanal si wet li doon kontaan maa ngi jotal nuyoo bu sëñ Abdoul Aziz Al Amin bi nga xam ne bu dul woon moom taaliba yu bari yuuxu ca Tiwaawan bu fi yeewu bu fi yeewoo benn ordonnance ñu ne boo ko jëndul tey faatu boo laajee ñu ne sëñ Abdoul Aziz newul ci dëkk bi bu keroogee doo fanaane jàmm ñu ngi wax ci turam mu ngi gërëm sëñ bi ba ca des tam ñu ngi jotal nuyoo Abdoulaye Makhtar Diop grand sëriñ de Dakar. mu ngi wane cofeelam ci sëriñ bi ak bokk bu mu ci mbooloo mi yowoon na fi forte délégation allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam dañoo jox cër bi Cheikh Moustapha te sëñ Modou Moustapha ak Cheikh Modou Lamine ak Cheikh Modou Lamine Baara ñoo bokk lépp mën naa wax ci yaari kër yi mu yónni ma ni ma wool ma sama rakk ji kenn doyuma Cheikh Abdou Gaye Cheikh Abdou Laat mi ngi fayee Cheikh Laat rek moo doy waaye sama yaram daw na sëriñ Cheikh Coro ca suba ba léegi demoo sa kër mbooloo maa nga fa ak daayira ba nga bàyyi fa toog ci sa wetu bàyyi Cheikh Moustapha sa mag ju mel nii waaye bis bi bisu kan la bisu kan la Cheikh Modou Cheikh Modou Lamine Bara kan mooy Cheikh Modou Lamine Bara Cheikh Moustapha moo tiiroo foofu ca Touba collecteur armeel yi fondation jumaa ji ba nga jël ci goudron yi jëlee sëñ Bamba Ndiaye min ko ci biir moo ko ne Ahmadou Lamine mi ci wilaayu gu doy ga kan mooy Ahmadou Lamine kan mooy Ahmadou Lamine mooy ki nga bis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 mboolem mbokki jur yi fi teew ñu ngi leen di nuyu gën ngaa tedd nuyoo di leen sant di leen gërëm di leen jot rek ay kàddu yu gàtt ñu jóge ci sunu kilifa di sëriñ Abdourahmane Mbacké tamu teew fi teewal fi Cheikh Ahmadou Makhtar ak mboolem njabootu Cheikh Mouhamadou Moustapha Guèye kàddu yi nag kàddu yi gàtt lay doon ndax Serigne Cheikh Thioro xaj na da ngay yàgg rek te baax wante kàddu sëñ Ahmad Maxtar bu Cheikh Sidi Maxtar teewee ñun waa Daaru Xudoos amatuñu kàddu ndax kër Serigne Bara ak kër Serigne Modou Moustapha du ñaari kër genn kër la naka jekk képp ku fi mag ci jaboot yaa koy jiite muy na ko dalee ci sëriñ Modou Bara jaar ci sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacké ñëw ci sëriñ Abdou Aziz sëriñ Aliou sëriñ Mahmadal ba tey jii Cheikh Sidi Makhtar mag nekk ci bopp njaboot yi yilif mbooleem luy njabootu Cheikh Mouhamad Lamine ak mbooleem luy njabootu Cheikh Mouhamad Moustapha bala ko bala mu nekk tey Cheikh Khadim jiite mbooleem yoon moom rek kon dañuy nuyoo di ci jiital ki nga xam ne moo di Serigne Moustapha mi nga xam ne moo mag ci sëb Serigne Mbaye yi fi nekk di nuyu mboolem mbokk yi fi teew ak fu nu mën a jógee mu ñu jógee Touba ñu jógee Darou ak ñu jógee ci yeneen kër diine yi di nuyu xam ne ñoom la fi président de la République yabal te ministre d'État Mbaye Ndiaye jot ci suñu nuyoo ak ñi nga xam ne ñoo fi teew ci geneen xam ne te maître bi dëgg ñaar nekk ci bopp di am nag mbégte boo xam ne du lenn lu dut am kilifa bu mel ne Cheikh Sidi Makhtar ndax Serigne Bara daf nekkoon ak Serigne Modou Moustapha nekk ak ñagam nekk ci kanamam dara mënut ak si biir Serigne ndax Serigne Bara Serigne Bara jël léppam njëppal nanguwut a am dara. nañu wute doon dara léppam di Serigne Modou Moustapha muy njaboot bi muy li am lépp bi nga xam ne ni sunu borom moom na ko Cheikh Modou Moustapha jël njabootu Serigne Bara gi moom njabootu boppam gi kenn musu leen xam ne daayira gi dañ ko bañ ba benn daayira la woon diiram li nga xamante ne bii mag ñi ma tudd léegi ñu nag loolu di lu yàgg loo xamante ni muy wéy ba nëgënu Cheikh Sidi Mokhtar nekk ci bopp muy kilifa boo xam ne nag képp ku ko am di nga sant yàlla ndax ni ko Cheikh Mouhamed Mahfouz waxee léegi kilifa boo xam ne dara na yitteelu ko lu dul liggéeyal suñu borom lu dul liggéeyal Serigne Touba jël tànkam teg ko fam ko war a teg uuf mbooleem njabootu Serigne Touba gi dara rëcc ko suñu borom itam jaarale ci moom li nga xamante ne bii mooy li mu ñu digal mu jullit yëpp nekk benn suñu borom jaarale benn jullit ci Sénégal ci loxoy Cheikh Sidi Maxtaar mu toog def loolu yitte yi ju mat sëkk ba mu fi nekkee ba tey kenn mu mus a dégg ñu ne ñaari korite am wala ñu ne ñaari am na lépp ñoo koy bokk def gis ngeen léegi rek suñu mbokk yu jógee Thiaw témoignage yu am solo yi nga xamante ne def léegi ñu Cheikh Sidi Maxtaar loolu doyatu ko li nga xam ne mooy liggéeyu Serigne Touba mu def ci loo xam ne néewaan na ko ñu def luy toll ndax lépp lu mu ci liggéey. muy ci jumaa ji seen Dakar muy ci jumaa ji si Touba muy dimbal yi xam ne ñu ngi koy dimbali bopp bi lu ci nekk ci alali boppam ñàkk boppam moom la koy yoo xam ne kenn xamul mu toll moom nga xam ne kon amul boppam dara lépp lu am la jël na ko def ko ci yoonu yàlla defa ko ci Sëriñ Tuubaa ba tax tey jii suñu borom jox ko dayoo ak personnalité ak dignité boo xamante ne bii ñëpp marché nañ nangu ne diine fii ci Sénégal de Cheikh Sidi Maxtaar moom ñëpp nangu nañ ko bu wér a wér a wér te loolu jikkoon ma ak baaxam ak kon nag ñun bu yàlla baaxee ñu am kilifa bu mel noonu dañuy sant yàlla ba nag bi nag di ko fekk laa si tey bii ne ko mbooleem njabootu Serigne Modou Sa gépp ci njiital Serigne Ahmadou ñu ngi fàttali seenu njëbbal di fàttali seenu laxasaay di ko xamal ne ko de ñu ngi ci ginnaawam. te lu mu wax lañ wax lu mu wax waxuñu ko lu mu digle ca lu nekk te lu muy tere fas yéene bu seen leen kon na xam ne day boole ñëw Serigne Modou Moustapha foofu la ñu nekk te xalaatuñu leneen kon wax ji jëru gudd kàddu genn la Serigne Cheikh Thioro moo ko yor ñu ngi sant ñëpp ñu ngi gërëm ñëpp di baal wax ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu jërëjëf. salaamaaleykum rahmatullahi taala wa barakatuhu. Ah, suñu wëyjur suñu sëriñ suñu yaakaar jiite tey njaboot Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu Rasuul sëriñ Sidi Maxtaar Mbakke yàlla na nga fi yàgg te wér ñun ñoo la indi noyoo sargal yokkute taalibe président la république sa doom sa xarit sa taalibe yónni ñu fii pour ñu ñëw sargal la ci bés bi du rekk sargal la wante ñëw bokk ci bés bi bokk ci bés bi parce que président de la république Macky dafa jàng ràññee ne Sénégal xëy na am na fépp ci àdduna wante fii ci senegaal daf ci am ñaari tànk ñaari taxawaay yu ko waat benn bi mooy ñi nga xam ne suñ borom tabaaraka wa taala moo leen tànnal boppam ca la ñu liggéeyal seen boroom ci topp Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba mu may leen lam leen may yëkkati boobu ak taal boobu yàlla suñ borom ca mu waxee ca alquraanu karim ci leeram bu tedd bi nga xam ne moo koy jox ku ko soob ñooñu taal yooyu suñ borom taal bu ñu ootee képp kuy doomu aadama rawatina ku suñ borom teg responsabilité jiite am réew nekk ci yow taxaw fa war na la wane sa jëmm ne ci nga bokk war na la sàkku fa ñaan war na la bés bii ak ki ko jiite suñu wéyjur suñu sëriñ di sëñ Sidi Maxtaar ak njabootam ak njabootu Cheikh Ahmad bàmbar radiyallahu anhu yàlla yokk leeram mu nangul ñu suñu taalibe bés bii ci bés yooyu la doo ñaareeli taxawaayam oote yi nga xam ne ñu ngi koy oote ci réew mi muy oote yu jëmmal doomu aadama yuy suqali askan wi yuy rafetal jëm yi ak ngëm yi mais di laaj également kii nga xam ne moom la yàlla teg ci ay loxoom réew mi mu am responsabilité jël bépp juntuwaay bépp taxawaay moom ak ñi koy jàppale ci doxalinu réew mi pour wane ne réew mi bu ñuy wax laïcité compréhension biñ ci war a am moo di ne fii ci Sénégal réalité bi fi ne ah kenn mënta dem te jiitaloo kër diine jiitaloo diine islaam boobu taxawaay mu ngi koy feddili ci sa kanam mbàkke yaram wante def fi ñëw également pour fàttaliku démb ba muy wut réew mi yàlla suñu borom tabaaraka wa taala mooy joxe nguur qulli allahuma maliku mulk tuutil mulk man tashaa wante def ko am fu koy jaarale démb ma nettali rek ñaari xisa dama ànd ak président Macky sal ñu seeti guddi ak Moustapha Cissé Lo suñu wayjur suñu baay suñu sëriñ suñu yaakaar sëriñ di Maxtaar Mbàkke ci yenn ci makkaanam guddi ñu dem seeti ko ba mu sàkkoo ñaan ba pare mu jël loxoom yu tedd yi te ampul ne ko maa niital ba ci oto bi moo jiitu niital président Macky Sall ba mu dugg ci oto bi ñaareel bi ñu fekk ko guy mbind ñu ne ko dañu ñëw sàkku si ñaan pour président Macky Sall pour élection yi di ñëw mu ne man de lu ma ñaan suñu borom mu may ma donc fàttaliku démb bokk na ci li ko indi fii tey yónni ñun ñun ay ndawam ay compagnons de lutte am pour ñu feddali kóllëre ci sëñ Sidi Maxtaar Mbàkke yàlla na fi yàgg te wér pour yëgal ko ne fii ko yàlla tegg tey day fàttewul ne am na ñu ko ñaanal rawatina sëñ Sidi Maxtaar Mbàkke ñu ñëwaat fii parce que xam na ne ñaan yooyu ko topp ba xalaat yi mu war a doxale réew mi biñ ko yëkkatee ci Sénégal émergent yal na senegaal jóg dem kaw jëm kaw noonu la tudde programme bi bi mu demee bitim réew bi fa sàkku ñu ko mën a gunge pour senegaal am jumtuwaay pour mën a jëm kanam adduna yépp xam nañ ne président Macky Sall lépp lu mu doon wut bu dee benn am na ñaar walla ñett loolu ñaan moo koy tax beneen bi Sénégal ak li ko wër ah gis ngeen ne ay menaces maanaam loo xamante ne lii yal nañ ci yàlla musal am na ñuy mbubboo turu islam te islam wax dëggu yàlla senegaal islaam pour ñun du ñu jéggaani islam am nañ Serigne Touba Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rassoul am na ñu ñeneen ñi mel ni moom wala boog ñu xamante ne ñii ñoomit it liggéeyal nañ suñu borom tabaraka wa taala looloo tax ñaan seytaane yooyu di jóg ci turu islaam bañ a gu mukk Sénégal ah loolu itam nee na ma naa tàllal loxo yaa ngi ci ñaan guddi ak bëccëg nga ñaanal Sénégal islaam bii fi suñuy maam suñu yaakaar adduna ak alaxira Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu Rasuul def dañu ñu sëkk pour tase ak suñu borom tabaaraka wa taala topp ci ki nga xam ne mooy sàng sàng yi Muhammad sallallahu alayhi mu ne ma également am na benn feebar bu ñuy wax ah te mu am fële ca Guinée Conakry wax dëgg yàlla feebar boo xam ne gisaguñu lu ko mën a faj yal na yàlla def ba du dugg si senegaal ñu ñaanal réew mi jàmm wante itam mu wax ma ne man Macky Sall président la république nitu jàmm laa nitu mbokk laa nitu kóllëre la man duma xeex doomu aadama wante am réew dafa am ñetti anam yu ko ŋënk ki yore réew mi ñu di ko tuddee exécutif ñiy voté loi yi ak justice muy les juges anam yi ñu war a liggéeyee réew mi rafetal jikko yu rafet ci loolu rek lañ ko mën a sukkandiku ba kuñ ci jox alalu réew mi nga respecté koo xam ne alalu réew ah du parce que da nga yore ndombo tànk lu la neex nga def ci moo tax anam boobu muy ñaan ngeen ñaanal réew mi jàmm nekk ci xol yi ñun ñëpp ñu nekk benn ba kuñ ci joxati ëllëg nga xam ne am na loo xam ne yaako moom am na loo xam ne moomuloo ko be boo ci jegee itam lu yoon di def ci yow ñu xam ne du xeex wante dañu war a rafetal jikko yi ba yàlla may ñu jàmm ñu développé suñu réew asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mujje woote appi dongo susum sooroon gën juma yetti mag daje ci moom magal bu mag gi jumaa ju mag gi sëriñ bu mag bi xaadim rek xaadim borom nit ñi sëriñ bi bismillah yàlla wa sahbi wa man tabi'ahum lana ila yawmi din mbokk jullit yi mbokk taalibe ginnaaw bu ñu sante yàlla suñu borom jullit yi yonente bi salaatu wa ñoo ngi leen di nuyu di leen siyaar di leen baru àq ci turu Serigne Touba a Cheikh Sidi Mokhtar alxalifatul am li taifatil muridiyya ayyadahu llah wa nasarahu ak mbooleem ay rakam rawatina ci turu sëriñ Moustapha mii nga xam ni mooy taawu kër gi te sëriñ bi teg ko ci suñu kanam mu jiite liggéey maa ngi leen ci nuyu yéen ñëpp ci tur yooyu di leen ndokkeel di leen sargal ci bis bu sell bi nga xam ni moo di màggalu Mbàkke Kajoor te ñu wax ba tey li nga xam ni moo ko wund ñi fi jaar yëpp wax nañ bi ñuy woote màggal gi itam wax nañu ko kon xam naa du jaralu ciy déglu si wante muy bis moo xam ni islam bi yëpp ñoo ko bokk rawatina yoonu murit ndax xam ngeen ni ku tedd gi Cheikhina Cheikh Ahmadou Bamba en 1883 bi Momar Anta Sali génnee àddina fii ci Mbacke Kajoor mu yóbbu ko deqale daa wéyoon yoral ko daara ji di jàngale na mu daan jàngale wante mu génn benn yoor yoor ni sayyidina Muhammadin alayhi salaatu wasalaam feeñu na ma fii ci Mbacke Kajoor nit bu ma yemanteeg taalibe rek ci am njàngale waaye naa aw ñoom ci yoon bi nga xam ni mooy li ñuy wax himma te mooy pas-pas bi nga xam ni bu ci jaam bi jaaree dina àgg ci boromam ci la génn ni saafahani rasulullahi sallallahu taala alayhi wa sallam bi xawlihi rabbi asxaabaka bi himmatin wala trobi bi daal di ni kon bëgg àgg ci sa borom mën ngaa toog waaye nga dox sama doxin mel sama melokaan mu ni man aradama arat na fal yas du say riba ci lañ tàmbalee jaayante ak sëriñ bi yoonu mooy dal di dugg fii ci Mbacke Kajoor sëriñ bi am fi ab diir dem ñibbi Mbacke Bawol génn fa sant Daaru Salaam sant Daarul Alimul Xabiir sant loo borom Daaru Moxti Daarul Manaan dem sant Daaru Rahmaan sant Daarul Udus ba dugg fa xalwa gisawaat fa ak Seydina Muhammadin alayhi salaatu wasalaam wante ci waxinu sëriñ bi dañuy gis nit ci dëkk bi di Mbàkke Kajoor fi la jëkk gisante ak Seydina Muhammadin alayhi salaatu wasalaam mu feeñuwaat ko nag ca Daarul Xudduus ci këram boobu nga xam ne fa ñuy wax jàkkee sëñ Mbàkke Madina mu déylante moom la ñu déylante mu yanu yan bi fas yéene ci liggéey bi bi mu génnee ni day dem Jolof ba agsi ci pénc bi la kaala gi wadd ci suuf mu geesu jàpp ko mu dëgër lool ndeka suuf subaa moo feeñu ba dal ci kaw kaala gi mu ni liñ doon seet lépp gis nañ ko at moomu la sanc Touba fekkoon na ca Daaru Salaam mu am fa Cheikh Mouhamadou Moustapha ci weeru Muharram ñu teg ci juróom-ñaari weer ci rajab mu am Cheikh Mouhamadou Fadil ñu tegaat ci ñaari at mu am Cheikh Mouhamadou Amine 1888 ci Touba mu woo ñi nga xam ni ñëpp jaayante woon nañoo moom fii te booba ëppoon nañ téeméeri góor waaye ñi fi jaayante woon fii ñeent fukk la woon mu woo leen ba ñu ñëw mun leen li ngeen doon sàkku ci seen borom lépp gan gi ñëw andi la leen ko kon tey mën ngeen a moo taxoon Cheikh Saliou Mbacké radiyallahu taala anhu woo Cheikh Sidi Makhtar Mbacké xam nga bu jëkkoon ñi ngi daan fàttaliku bis bi nga xam ni ci la Cheikh Mouhamadul Amin génne àddina waaye mu wax mu ñëw ne ko bisu naqar bi bisu mbégte bis bii nga xam ne ci la gane àddina day bisu ndimbal di bisu taw feex di bisu faj ajo moo tax mu bëgg ñu taxawal Cheikh Mouhamed Bara bis boobu leen moo tax sëriñ bi woo ko woote ko ngir bëgg jullit ñëpp seen aajo faju moo sabab ñu magal bis bi mu ko wootee nag ñu ànd ko suñu mag Cheikh Mouhamadou Moustapha wootee ko ko waaye Sénégal bépp wuyu si nañu jullit yi kër kilifay diine yi kenn desul ñëpp ñëw nañu gis ngeen sëriñ Abdoul Aziz Al Amin na leen si biir délégation bi ci sëriñ bi mu yónnee ci moom sëñ Habib Sakho bi mu ñëw mu jaar mu soo demee lu baax loo fa xam nga waxal ma ko sëriñ Maodo Cissé itam gis ngeen mi ngi fi waaye ñoom ñaar su dul loolu am ngeen fi yeneen cër ndax. sëriñ Abdou Cissé Jaamal ak sëriñ Abdou Cissé Pire ci daaray Momar Anta Sali ji fi lañ doon jànge bu dee sëriñ Abib Sakho itam sa maam maam Iliman Sakho fii la doon jànge kon yéen yëpp da fa am ak cër kon ñu sant leen baax gërëm leen ci wax yu rafet yi njabootu Cheikhul Khadim bi itam kenn desul li tax la ca maam Maharam wàcc maam Balla maam Momar Anta Sali ba rakkam yu baax yi nga xam ne kenn bu nekk dangaa nekk xalifa ci kër sëriñ Touba yi kenn bu nekk jógal nga sa bopp ñëwal sa bopp fii ci bi benn nga yendoog moom mbaa nga nekk fi képp koo xam ne am nga ngaan ci leen seet nga ñëla gën a jigéen ñëpp nga yebal leen ànd moom liggéey bi kon ñu leen di sant bu baax a baax a di leen gërëm di sant taalibe yi di sant fédération yi di sant maanaam képp koo xam ni ñëw nga ci bis yi mbaa nga bëggal sa bëggoon a ñëw te di sant njabootu boppam bi tàmbalee ko ci Cheikh Mouhamadou Moustapha te bàyyi Ahmadou Makhtar nekk jëwriñam sëñ Cheikh Abdoul Ahad soo gisee ñu jox ko bàyyi Ahmadou Makhtar kaddu xam ne ni benn la waaye dafay jëwriñ sëriñ bi mu koy liggéeyloo kon moom rek lañ taxoon ñu jox kaddu ngir mu seere ay seere liggéey ak sëriñ bi kon sëñ Abdourahmane sëñ Bàyyi sant bu baax a baax di ay cant ci njaboot bi yëpp tàmbalee sëñ Cheikh Bamba yi sëñ Abdoul Fatah ak seen ak yëpp di leen ñaanal tawfeex ndax gis na bi mu koy def di santaane mboolem njabootu Sëriñ Tuubaa rawati njabootu Sëriñ Tuubaa nga xam ni ay rakam lañu ñii di ay doomam an boole woon ñu ci liggéey ñëpp ñu ànd ko ba liggéey bi di nuyu ñëpp di leen sant sëñ Mouhamadou Mahfouz ak ñi fi ñëpp yéen bis bi ko moom rafet na ñi leen sant bu baax a baax di leen gërëm may ànd nag ñooñu ma wax ñëpp nag di tatagal délégation officielle bi nga xam ni dafa jógee ci le président Macky Sall te ministre d'État Serigne Mbaye Ndiaye jiite délégation bi ànd ak ministre Serigne Khadim Diop ak ministre de l'élevage soxna Aminata Mbengue Ndiaye ànd ak ministre conseil Serigne Arouna Coumba Ndoffène Diouf ak Arouna Coumba Ndoffène Diouf ànd ak euh, Pape Diouf tam moom it ñëw na fi sëñ Moustapha Cissé bi nga xam ne mooy deuxième vice président assemblée nationale mi ngi ci jataay bi ministre Mor Ngom yónni na fi soxnaam fi la yendu Mame Awa Diaw ak ndijaayam Serigne Alioune Sylla bi nga xam ne itam Alioune Sall di rakk ci président Macky Sall mi ngi fi maître euh, soxna aw Marie Coll Seck moom ñëw na fi aju moom itam ànd ak ay kilifaam yëpp di seet si liggéey bi ba xam fu mu toll Pape Dieng ñëwoon na fi euh, di itam délégation bi nga xam ni moo di bàyyi ko ci ministre de la femme Anta di nuyu Alioune Sall wax naa ko sàng maître Madické Niang mi nga xam ni moo jiite délégation euh, PDS di nuyu soxna ay ay Aïda Mbodj mooy mi ngi fi ak suñu su préfet bi tàmbalee ci gouverneur alhaji Mouhamadou Lamine Sagna ak góor gi mbay ak suñu sous-préfet Mouhamadou Ly di leen sant bu baax di leen gërëm ndax bi maa ngi leen ñëw nañu fii ci Mbacke Kajoor ànd ak njaboot gi yëpp ñu def fi ab CDD liñ soxla woon ci màggal gi yëpp ñu tënk ko ci delluwaat dugal ci gouverneur la ñu teccali woon lépp itam la ñu sàkk woon ci gouvernement bi ñu teccali ko foofa waaye liñ leen mën a yóbbante ay cant ki ngërëm moo di liñ sant woon sàkk woon lépp ci magal bi lépp defal ngeen ñu ko ni ko bëggee kon ñu leen ci sant bu baax a baax di leen gërëm di sant mboolem chef de service yi nga xam ni dajoo nekk ci région de Louga wala département Kébémer wala arrondissement bu Darou Mouhty monsieur le ministre d'État monsieur Mbaye Ndiaye soo delloo ci président Macky Sall nga ni ko ñii nekk fii muy sous-préfet ak sant nañ leen bu baax a baax ci màggal gi ndax ñoo àndal organisation bi loolu màggal gi itam ñu ngi ci sant bu baax ndax léeg am yu xew yow xam ni suñu woon ñoom dañ ci taxaw taxawaay yu rafet di ànd ak ñoom ci biir di dugg ci biir njaboot gi di leen lijjanti loo xam ne su jëmoon kaw la leen mën caa dugg kon ñu sant leen ci bu baax a baax a leen ci di jot li nag ndigal yi nga xam ni dafa bàyyi boo ci si Sidi Makhtar Mbacké ndax dafa wax ni bés yu mel nii bu ñu ko dee fàttali muy bés yu mel ni Cheikh Mouhamadou Lamine Bara dafa am lu tax ñu koy fàttali seen melokaan ya nga xam ne yàlla rek ak seen gëm yàlla te wéetal nga ñëwal suñu borom ak seen jikko yu teggee ñu roy ko ci ñoom ndax bépp yonent boo xam ne suñu borom mas na laa yónni mission bi nga xam ne maa ngi dox ak li nga doon wax moo di benn kàddu la yaa xaw mi abudullaha maa lakum min ilaahin xayruhu yéen nit ñi ànd leen ngeen marché jaamu seen borom ndax bu suñu borom boobu nga xam ne dañ ko bokkale ak dara moo tax seen bi sàkkuwaat yu ñëpp ñu delloo suñu bopp ci yàlla di ko jaamu jaamu bu sell bu wér bañ ko bokkaale ak dara te ñu saf ci ndigali sëriñ bi te bañ ko génn te xam ne bu tedd liggéeyal na yàlla suñu borom ba mu fayee ko lépp lu baax amul dara lu baax lu ñuy lëkk diggaan yi lépp yàlla jox na ko sëriñ bi li waxoon fi ci dëkk mu sell bi itam ni man arada ma arad na fal yasir bi sayri naa kon melokaanu sëriñ boobu la bëgg ñun ñëpp ñu tënku ci jaamu yàlla te nangoo liggéey muy sàkk wàcc ñun ñëpp itam ñu ci tool yi waajal ko liggéey ndax talaata jee weesu joxe na ay ndigal ñëpp nañ dellu ci tool yi liggéey nag dafa am nuñ koy waajale ndax suñu boroom dafa wax ci alxuraan ni jafe-jafe yow gis nit ki am ko moo ko sawlul boppam ndax mi ngi wax ci alxuraan ni wanaw walaw anna ahlal qura amanu wa taqu la fatahna alayhim barakatin min as-samai wal ard walakin kasabu fa axasnaahum bima kaanu yaksibuun xam ngeen ne suñu borom dafa wax ni nit ñi suñu gëmoon yàlla te ragal ko dina dotti ay waame yu barkeel yoo xam ni su wàccee ci suuf si ay gàncax yu barkeel dina ca génne su ko defee li bëgg lépp ñu am li bëgg ci ñun ñëpp itam moo di kenn ku nekk suñu borom li mu dogal ci yow nga nangu ko ndax soo wax ci al dafa wax ci xadis xuf si xut yi ni inna min ibadi man salaahu fil xina falaw axraytuhu la fasada xaaluhu wa inna min ibadihi man salaahu fi lfaqri falaw axnaytuhu la fasada xaaluhu inna min ibadihi salaahu fi lafiya walaw amraytuhu la fasada xaaluhu wa inna min ibadihi man salaahu fi lmarad falaw aafaytuhu la fasada xaaluhu mu ni jaam bi dafa war a gërëm boroomam ndax lu mu dogal ci moom mu war koo neex ndax am na ci jaam yoo xam ni seen mbir yu baax yëpp mu ngi ci kawam gi nga xam si borom defal nañu ko maanaam am-am bi ñu am tey suñ borom bu jëlee am am ba seen biir yëpp yàqu ne am na ci jaam yoo xam ni seen biir yëpp mi ngi ci ñàkk gi ñu ñàkk bis bi leen joxoon ñu am seen àdduna bi yëpp am na ñoo xam ne seen biir yëpp mi ngi ci jàmm ji ñu am tey bu leen feebar seen àdduna yàqu nee na am na ci jaam yi ñoo xam ni seen feebar bi mu leen feebar ci leen seen mbir di doxee tey bu bàyyi woon feebar boobu jëlee ko ñoom dafa leen jàmm nee na seen mbir yëpp yàqu kon sëñ bi di sant ñëpp di gërëm ñëpp bëgg ñun ñëpp ñu delluwaat ci tool yi waajal ko monsieur le ministre d'État nag Mbaye Ndiaye li nga waxoon sàng ni dafa am benn feebar boo xam ni Ebola la tudd dëkk dugg ci benn réew bu ñuy wax Guinée Bissau wala Guinée Conakry yi sëriñ bi dafa am benn lu mu bind waxe ni képp koo xam ni jàng nga ko sëriñ bu mag bi moo ko waxal balaa boobu dañ ci mucc mu ne allahu xayyun samadun wa baaxi subhanahu su kanafi wa waaxi wa nahnu fi kanafil manii min kulli sharin wa ala shanii mustamsikina bil xiyaasi ahmada xeyril anaayi muntahin wa mubtada man xaalahu fi samanin wabaa'i amadahu llahu min al balaa'i cheikhul xadim moo ko wax ni bépp balaa boo xam wàcc ci jamono képp koo xam ne wax nga lii di nga mucc balaa boobu ñu bëggoon ko ñëpp ànd la ñoon wax ko moo di allahu xayyun samadun wa baaxi subhaanahu suu kanafi wa waaxi allahu xayyun samadun wa baaxi subhaanahu suu kanafi wa waaxi wa nahnu fi kanafihi lmanii min kulli charin wa asa sanii mustamsikina bil xiyaasi ahmada xayral anaami muntahay ba mubtada kon ñu ngi sant ñëpp di leen gërëm di wax ba axir da'waana alhamdulilah